0 minute, 0 seconde. Zéro minute, zéro seconde.
asalaamaaleykum asalaamaaleykum rajo Dakar man la général Ndoye ak le parachute man la général Ndoye le parachutiste waaw man du ma man du ma du ma paaxe du ma paaxe mbaar te du ma te ina inapte ma je suis pas inapte moi je suis apte kon nag borom xam na xam na xam na ki may wax li may wax nii am na koo xam ne xam na xam na boppam bu baax a baax xam na xam na moom la moom laa moom la ma waxal aw xam nga xam nga baax ba baax a baax a baax la may wax ki ma ki ma wax ji kaka moom borom xam na ko waaye Fatima Diop maa ngi lay ziar waay sëñ Ndakaaru di lay ziar bu baax di seet noo def rafetlu kàddu yi am lu solo macha allah waaye di nuyu gars ñi fi jaar ñëpp macha allah macha allah macha allah te moom gars yi dugg bariwul ah booy booy kii maa ngi lay booy Moscou maa ngi lay ziar bu baax di nuyu lay yàlla mbin di nuyu Pape Daouda seen Maodo Mandela maa ngi lay ziar seen noo def di nuyu soxna Soda général Soda ñu ngi lay ziar soxna Nafi Nafi moom temps yii moom daf ñuy daf ñuy jàmb quoi Nafi temps da ngay jàmb mais Nafi temps nga jàmb forom bi léegi ba yow doo duggati mukk da ngay bind rek te yow macha allah tu es vraiment au milieu pourtant yaa ngi def kii di waxtaan ah di dugg ci kii bi xanaa léegi da nga am ni mu demee noonu da nga da nga am da nga am borom kër wala ni mu demee noonu mais ngi lay ziar ça fait longtemps la dugg duggut loo de dama xamul lan la dama xamul ndax dafa am da nga am borom kër mu teral la nga dugg ci forom bi wala ni mu demee noonu mais anyway ñu ngi lay ziar di rafetlu bind yi am na solo am na solo trop di Jibril Fadiga ñu ngi lay ziar bu baax a baax a baax a baax di nuyu Bax si Njogu Yaxal Caam di nuyu Jaraaf Ngor Wakam Yoof Sisko ñu ngi lay ziar bu baax a baax a baax xam nga fi gëj nag xam nga fi gëj lool ñu ngi lay ziar bu wér di seet noo def di nuyu Soxna Adja Ndiaye jaay jaay jaay Adja Ndiaye ngi lay ziar bu baax a baax a baax di nuyu général Thiam général Thiam ngi lay ziar jaamu yàlla jaamu yàlla nen la nen daal mi ngi baal wax Ousmane Sonko quoi mais garaawul politique la politique la jégal jégal nañ la jibi si ngi lay ziar si di ñàng lay ziar bu baax incha allah
asalaamaaleykum la famille maa ngi leen di nuyu di leen ziar di nuyu soxna Fatima ak tonton Sadibou maa ngi leen di dénk sama ziar ak bari nuyu naa ñëpp ziar ñëpp. waaw dama doon laaj dafa am ñoo xam ne dañu may laaj naka la ñuy def ba mën a yónnee Walf xaalis ma doon saako rek koo képp koo xam ne rek xam na fan lañ mën a jaar ba yónnee leen xaalis mu laa biire ma koy incha allah. maa ngi nuyu ñëpp nag di ziar ñëpp ci nuyu nu mu tuddati xot Cisco gëjoon nañ ko dégg xot ak a bëgg leer.
salaamaaleykum asalaamaaleykum rajo Dakar man la général maa ñëwaat fekk ci bunti Abdoulaye Diakhaté lay ziar bari lay ziar baax wala Mandela di sama jarbaat Pape Alassane Niang ñaan di jib ñu ngi lay ziar baax di chef soxla seen xale yi. nga Mohamed maa ngi ziar bu baax a baax di nuyu gars ñëpp ci li mbeng foo nekk génnal yaa ngi yaa ngi yaa ngi boof ci yaa ngi boof ci affaire bi de ah yaa ngi yaa ngi boof yaa ngi yaa ngi sëgg di for xaalis quoi ah yaa ngi bay temps yi temps yi daal xanaa moom temps yi waxoo dara moom temps yi moom dëkk bi dégg naa temps yi dafa busy temps yi yaa ngi gas jamaate ah préparé vacances incha allah déwén yëpp tëdd benn daal benn affaire la moom daal vacances daal lay liggéeyal boo amee xaalis daal bu bu duun ñëw Sénégal tëdd jaaxaan lekk xaalis ba mu jeex takk delluwaat del bu xaalis ba jeexee mu dem mu dawaat delluwaat noonu la noonu la nga ko bëgg a jàppe daal ah ci li mbeg am am ñaari jeeg fa am ñaari jeeg fii waaw baax na demal rek nga demal yaa ngoog jigéen yaa ngoog yaa ngoog bu fekkee mën nga sàkk mën nga mën nga mën nga fatt pax yëpp ah bu fekkee kàmb yëpp kàmb yëpp nga bëgg a pax nga nga bëgg a fatt demal rek gars yi duñu sonn de demal rek jeeg ji moom jeeg ji moom ñu ngi xat toog di xaar rek waaw ñaari ngi fii ñaari ngi foofu ne la sax ngay léeg-léeg booy sax ngay indaale troisième bi yooyu booy yi benn affaire la booy bii benn affaire la quoi sama booy dix avant bi daal moom mi ngi doon daal moom dix dix avant la am quoi mais booy bu garaaw la ñaari jeeg la yor fii ñaari jeeg États-Unis te bu ñëw vacances des fois day boo xaale kenn ki mu indaale ñetti fii ah del noppalu sa yem rek del noppalu ko baax na demal rek gaa ñaa ngoog yaa ngoog maa ngi lay ziar sëñ bari maa ngi lay ziar bu baax a baax seet noo def Maodo Mandela mais moo loolu moom xam man dama ñu xam mooy fekkee am xam nga am nga ñoo fi xam fii à Dakar léegi da ngay dajale quelques personnes ñoo fekkee am nga ñoo xam ne xam nga leen foofu dañuy dajale rek parce que ngeen envoyé ko benn fekkee maanaam gaa yooyu sa gaa yooyu maanaam dañu bëgg a envoyé fii si Walfadjri léegi dañoo dañoo xaw a kii mën nañu mën nañ ko kii mën nañu ko envoyé seen benn xarit fii rek ci benn Abdou Aziz bi Abdou mi ngi fi Diop Ziz mi ngi fi bu ñu ko envoyé Diop Ziz mën na dox ndànk yóbbu ko wàllu fajari kees gi di ko xaar rek jeex na wala demaat ñi bi soo toog fii soru fii soru wàllu fajari waaw ko moom ku ko envoyé Abdou Aziz moom moom gars yi nañ ko jot dina ko dina ko dina dox ndànk def ko seen kees gi kees gi foofu ñu teg si biir si biir si biir kii bi si biir rajo bi fa la nekk da ngay ñëw rek boo ñëwee dugal li ngay dugal parce que man dama en tout cas amoon nañu kañet mais kañet bi dafa naa gars yi kii nañ ko supprimé nañ ko wala Paypal dafa am dafa am nañu Paypal aussi yow Paypal waaw dégg naa am nañu Paypal quoi dama xamoon nag ban kii la mais boo ko boo ko boo ko recherché si Paypal bi je pense que mën nga mën nga fay mën nga mën nga dugal foofu xaalis ah Paypal bi. danaa dégg keroog gars yi ko di ko expliqué da ngay dem xam fan Facebook Facebook wala wala fajiri xam naa moom ngay dem recherche ko xool xamu YouTube bi daal déggoo naa gars yi ko xoolal ne foofu boo fa demee daal di nga gis Paypal bi quoi ba fa dugalee moom Paypal moom kenn kenn mënu ko kii gars yi état état mënu ngi dara parce que compagnie compagnie bu yàgg la et compagnie boo xam ne macha allah bien sûr bien sécure am na sécurité waaw. am na sécurité des du compagnie yoo xam ne comme ni ngi Sénégal comme par exemple bitim réew te boo ko defee si compte am day dem directement si compte gaañ ñi directement dafay dem yeah ngoog loolu daal boo ko defee dina baax moom essayé loolu nga xool
salaamaaleykum wa rahmatulah barakaatu Seydina Aliou Karamalaawa Thiaw am ñu war a leen nuyu di leen jaar mais bu ndoy le VR de quatre-vingt-cinq ans loolu lay bañ a dégg de tool ne moom wax ko waxee âge bi rek mu mel ah man man fi ñu toll nii xoolal àjjana wóoru ma ndax danaa ko am fële ma jéem ko garantir sama bopp fii donc ndax man dama gis ñii waaraate yëpp buñ ne àjjana waaye urul ay ni lañ lay dig ah urul ay ni rek lañ lay dig di ak lekk ku dul jeex ah ah ñun ñu jéem a ko fexe fii rek ah li ñuy liggéey ba ci li ñuy liggéey ah man ko daan ci wut ci jeeg ji de bu soobee yàlla daan ci wut ci jeeg ju baax ji jeeg ju baax ji daal moom daan ci jël jeeg ju baax ju rafet ju neex a xool yi ah daan ci wut jël si de waaw moom ñaanal rek ñu bañ am tur ñu am am bañ am tur yoo xam ni bés bu ñu ko fatee ñu màtt bi loolu la ñuy bañ waaw loolu donc ma lañ ci bañ tur boo xam boo ci liggéey mu ñu ji dugal fa dara mu màtt la moom boobu moom bëgguñu ko yàlla nañ ci yàlla musal waaw mu ngi noonu en tout cas daal ñaanal ñu rek waaw ñaanal ñu rek poos yi di fees yàlla def ci poos yi dara waaw mi ngi noonu waaw man à propos de li fi xew xaw ma li fi xew sax lañ ko war a wax à propos de di xalif général la li mu wax ne bu kenn voteel Touba ah man bu ma dégloo vidéo bi daa mel ni xalif bee ko wax de ne ni loolu la bëgg de bureau de vote yi dañ leen fa jëlee loolu de bu ko defee moom parti pouvoir lay jàppale moom yaakaar naa tamit bu dee mi ngi xeex tamit xëy na PDS ak Ousmane Sonko la gën a xeex waaw ndax gis nañ ne PDS moom wax dëgg Touba amoon nañ fa lu am solo waaye nag daa mel ni Seydina Ousmane mu sell mi nangu na fa lu bari xam naa ne bu sëñ Modou Samb duggee moom dina ko wedd waaye daal fi ñu toll nii moom Touba moom ah man li ma jaaxal sa bu bu bu sëñ bi bu ne Touba fii kenn waru fee voté ndax kër la moom dañ ñoo waroon a dindil suñu autoroute yi ñu fay jaar autoroute yi jaar ci biir kër gi ndax gisuma genn kër goo xam ne gi ay talib nañ jaar ci biir gisuma genn kër goo xam ne gi ay banque daañ ko def ci biir it moom fi ñu toll nii moom wax dëgg am na yoo xam ne nag war nañ jéem a nag ànd ak jamono Touba lu mu nekk nekk nekk titre foncier war nañ xam ne tamit bon bari na ñoo xam ne ñii tey dañoo jógee Ndakaaru wala jógee ci yeneen dëkk yi ñëw installé wu fa ndax bëgg gën a jege sëñ bi waaye nag li ci nekk mooy ku ko wax dee ku ko wax dee de waaye nag fi ñu toll nii moom ah ni muy doxee noonu de àndut ak àndut ak jamono de waaw konoon nañ bàyyi nag daay meeting politique yooyu yëpp moom bu ko fa kenn def waaye nag à part voté moom vraiment waroon nañ mën a jël ay part terrain yoo xam ne dañ koy sàkk dañ koy def uniquement wala lu mel ni ay daara yoo xam ne yii tey bu élection jotee ñu jël daara yooyu def ko ay bureau de vote te defe naa ne Touba ay daara ñàkkuñu ko waaw te daara yooyu tamit war nañoo am ay adresse fixe daara yooyu bu ñu leen dënee def leen ay bureau de vote nag dans ce cas bu élection jotee kenn ku nekk dem voteel fa ka nga soxla waaw même maire maire bi sax dégg naa dégg naa maire bi xalifa bu moom moo koy kii waaye nag defe naa ne fi jamono toll comme que Touba ñoom dong mënuñu demal seen bopp lépp faaw xaalis état di ci dugg moom tamit alalu état alalu Sénégal yëpp la defe naa ne waroon nañu mën a mën a may xam nga sénégalais yëpp tamit lii liñ mënee may sénégalais bu ne ñëw jënd Touba ab terrain daal noonu lañ ko waroon a mën a may tamit mu am choix pour tànn kan moo koy jiite ci Sénégal au lieu que ñu koy génn di ko yóbbu Mbàkke ndax xam nañ ne côté boobu tamit moom problème mu transport tamit ñu bari dañ ko fa dañ ko faa am bu ñëpp dogandoo pour dem ci benn béréb tamit ñëpp xam na ne dafay metti waaw maa ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp dama doy ñaanal ma soxla naa xaalis de jeeg ji dama cee bëgg jeeg ji bëgg naa ci lool te bëgg naa dolli na.
asalaamaaleykum wa rahmatulah Dakar man la général Ndoye maa ñëwaat le parachute le parachutiste di nuyu bari maa lay ziar di nuyu soxna général général Sada maa lay ziar bu baax ci lu mbeng ñëwati nga exe executé nga daal da nga buus jeg gi mais jeg gi ñu ngi toog di xaar rek yow kay boo bëggee ñett nga am mais bu la neexee kay demal demal kii rek demal demal demal doole yeneen ñeent rek. ah jéeg wax naa la jéeg ji moom du jéeg ji moom du ñu sonn moom ñu ngi fi moom du jeex waaw jéeg ji moom sooy ñu ngi fi du jeex waaw ñu ngi fi am pagaay des na si yow rek des na si yow daal yow daal yaa ngi des boo neexee mën nga jël yeneen juróom doon sa ñeent yi muy neuf ah nga ceddo nga waaw ceddo moom garaaw ceddo moom ceddo ceddo la quoi sama sama sama mbuur la woon daal sama mbuur la woon. daan na am ay soxna yu bari bari bari bari te yow yaa yore ndono gi buuru mbeng donc yow am nga droit fi nekk yore neuf bu la neexee ah kenn kenn teralu ko de parce que caddo ga caddo moom bu la neexee ñu takk neuf ba ba quarante bu la neexee en tout cas jag-jàng daal jag-jàng lay xaar daal waaw boobu moom moom des na si yow rek waaw des na si yow yeah maa ngi lay ziar yaa ngi gas jama foofu ah yaa ngi gas da ngay gas jama wala da ngay da ngay witti foofu naka New York City maa rëpp jàmm yaa ngi dóor quoi non del dóor rek dina baax incha allah del dóor rek loolu dina baax waaw li waaw léegi nag li nga wax si Touba mais en tout cas daal man li may li may gis mooy dama ragal ne bu fekkee lii bu fekkee loolu am na moom bu fekkee bu ñu demee ba dindi fi bureau de vote yi à Touba parce que état soo gisee état bi état yi état bi sooy song Touba c'est parce que mbooloo mu yor la waaye defe naa ay trois quatre millions d'habitants ñoo fay ñoo fay kii ñoo fay yeewoo xam nga loolu moom électorat ba mu doole la ñu ne boo bëggee dindi électorat boobu ah état bi est-ce que état bi aussi duñu duñu xaw a arrière parce que soo gisee état bi aussi songu Touba nii par exemple parce que électorat bi moo tax de parce que gars yi nga xam ne ñooy euh, ñu fi nekkoon Abdoulaye Wade ba ci Macky Sall bi gëmuñu gëmuñu leen dañuy dañuy soob rek politicien moom ay politicien lañu rek c'est intérêt bopp rek xool nañu xam ne xam nañ fii c'est intérêt fa la nekk ñu ñu jublu fa waaw xam nañ fi électorat bu am doole fa nekk 4 millions xam nga 4 millions 4 millions kii directeur waaw léegi nag bu fekkee ne ñoom di dinañu kii bi bureau de vote yi ah mais kon seen kii bi se- léegi état bi dootul dootul soxla si tellement bi kii boobu dootul soxla seen dëkk bi parce que ñoom soo gisee état bi sox tong song tubaab ni c'est parce que électorat bi loolu de électorat bi dong moo tax ñu suñu ñu song ko mais du gëm-gëm du gëm-gëm si état bi dara du gëm-gëm si ñoom daal maanaam ñoom topp ñu dem ñu tubaab pour gëm affaire mouridisme bari si ñoom tey maire la baal ñu ngi noonu rek waaw ñu naan ñu ngi si cungu cànga bi quoi gëmuñu kenn xamul lan lañu kenn xamul ndax murid ay ay musulman lañu kenn xamul ay yéefar lañu waaw loolu la quoi moo tax bon loolu moom bu amee moom Touba Touba moo ci perte rek waaw Touba moo ci perte parce que politiciens yi moom fu ñuy fu seen intérêt nekk fa lañu jëm fu seen bu ñu xoolee seen intérêt nekkul fa ñu ma ginaaw dëkk boobu waaw xanaa bu ko regee moom comme comme autant rek moom moo am xanaa bu ko regee autant comme ni taalibe yi daan daan dépensé bu ko regee taalibe yi ñooy ñoo ñoo fay dépensé mais pas état bi parce que état moom fu intérêt nekk lay dem fu intérêt nekkul du du fa dem bu dee war ni fii amatuñu fi benn benn kii amatuñu fi benn maanaam soxlo amuñu ci ay photo yooyu ah dañuy boog dañuy dañuy boog tuwaat tuwaat te bu ko regee leen rek xanaa leen xanaa leen rek mooy population bi. ñi xam ne ay murid lañu bu ko ñoom ñoom ñooy def comme autant rek di génne ay mille francs joxe yooyu yooyu quoi comme seen kii boobu ñu seen kii boobu ñu def noonu Touba sa kanam surtout état bi moom bu fekkee bu fekkee li am na moom ba am na moom danañ ba danañ woon ginnaaw Touba loolu loolu moom leer na ma parce que gars yi ñoom la baal seen fu seen intérêt nekk dong la ñu dem fu seen intérêt nekkul luñ ñu fa dem politiciens yi ba yëpp noonu la ñu noonu la ñu mel gëmuñu dara gëmuñu dara gëmuñu dara.
waaw lépp ndooy sa saa nu mu demee yaa ngi ci jàmm waaw ma ne ko paa bi wàcc na ma waaw gis nga man moom sedd ma jeeg jële ma commencé sama àjjana fii waaw comme que lii moom mën naa koo garanti bu ma amee xaalis waaw ba ma ma bàyyi bàyyi ma ma yàgg ci tali bi rek ma yàggee si tali bi xëy na dinaa mën a rek la aljanna bi fii quoi su ma demee fële nag moom moo fa fekkee aljanna tamit ah ma sant ko borom def waaye bi garanti bi daal moom nañ ko wut ba pare waaw li nga wax nag kenn mënu ko dindi de xam naa ne bu grand caab ñëwee moom dana wax leneen waaye fi ñu toll nii moom waaw sëriñ si moom bu ñu fexee ba politique jeex Touba moom na leen leer na fi ñu toll nii moom ba dina ba réalisation yi gouvernement mën a jàpp yu bari jëmale ko si Touba moom oh dootuñu ko def surtout suñu gars yi sax far mën naam sax keneen waaye suñu gars yi moom bu ñu amatul benn intérêt boo xam ne bii nga ngeen Touba leer na leen ne tey tey moom mooy deuxième ville deuxième grande ville du Sénégal ndax li fa nekk ci ay votants bari nañ bari goo xam ne gi tey am na solo daanaka yu bari fi ñu toll nii tey yoo xam ne projet yoo xam ne gouvernement bi war na ko fa def ak yooyu ku moytul daan ci tey gi seen tànk parce que ñoom defuñu ngir yàlla de ñoom dañuy def uniquement pour yaakaar ne xëy na bu ñu defee nangam la fay la fay am ci vote danañ ko jëkk waaw man nag gëm naa ne bii moom opposition bi moo ci gën a perte mais am naa yaakaar ne tamit bon am ah gëm naa daal xalif bi dana dina si dellu ginnaaw parce que gaw ma ne gaw ma ne Sénégal li fi nekk ci ay borom xam-xam ñu war cee mën a wax defe naa ne danañ dem ci xalif bi daal wax ko maanaam risque yi ci nekk ak ñàkk avantage bi muy def ci Touba tamit malgré murid yi jàmbaar lañu am nañ seen i kii xam nga mat ne bu bon dinañ ko xaw ma seen kii seen kees googu. fàtt naa sax li ñuy wax di seen kees boobu am nga xam ne vraiment jàmbaar lañu ñoo tabax jumaa ji nekk Dakar ak yooyu yëpp waaye tamit moom doolay état tamit yamut ak doolay nit ndax fi ñu toll nii moom nit ñi tamit bu ñuy mën dara tamit na fekk économiquement seen dëkk tamit xam nga am doole sur le plan économique ba mën cee taxaw wala sur le foo tamit bon mooy loolu daal.
waaw ci lu mbeng amee yow nag yow sa problème mooy yow doo entraîné xam nga bu fekkee da nga bëgg a am ay jéggi bari te doo sport mais doo nga sport dans la semaine te léegi yaa ngi troisième âge li ma xaw a jaaxal mooy yaa ngi jëm troisième âge quoi ba pare nag bugg a rangale ay jéeg yu bari bari bari bari te bu ko rek ah dina xaw a doy waar de donc li ma xaw a jaaxal mooy bu ko rek noo noo defal say jéeg yi ah bu fekkee da nga bugg a yeneen yeneen yeneen yeneen jéeg sa kaw ah suñ bi yaa ngi jëm troisième âge loolu nag loolu moom dina xaw a doy waar di ah li ma la waxoon doo ko def wax naa la ngay wax naa la ngay ngay ngay daw sport génn génn sa sa logis boobu génn ci mbedd muy daw la moo ci génne dem ci terrain bi dama Central Park Central Park Central Park xanaa boo liggéeyee ba yenn heure yi nga ñëw gaari foofu cent dix donc ndànk dugg ci parc bi ah footing footing ba jaxatoo xëpp waaw noonu ngay def boo la fatigué ba sa yaram tàng def ko au moins ay deux heures de temps straight non stop daw jógee cent dix ba cinquantième ba cinquante neuvième nga nga retourné encore defaat ko ah boo ko defee nga gis da nga gis ni ça va ah boo ko defee léegi léegi nga jàpp forme mais bu fekkee da ngay da ngay euh, sport yooyu dimanche ba dimanche nga dugg salle dox boobu ngay dox mel ni benn euh, mel na euh, benn waay buy buy doxantu quoi taxaw si benn kii tapis roulant quoi ah di dox ndànk loolu sport de. loolu de sport yow de yow yow doole ngay wut daal da ngay wut doole sport ak doole bokkul de yow da ngay yem def musculation li nga xam mooy da ngay génn ci terrain bi dem footing yi laa la wax bu ko defee moom boo amee ay jeeg boo amee ay jeeg di ci mën dara mais fekk mais noonu ngay def moom doo am doo mën si jéegi dara loolu moom maa la ko wax. maa ngi lay ziar anyway seen noo def waaw del gas rek yàlla baax na quoi del gas rek. waaw si li mbéy waaw mais li nga wax dëgg la affaire moom affaire état moom état état moom li ñu naan l' état n' a pas d' ami waaw l' état n' a pas d' ami il n' a que ses intérêts intérêt intérêt am dong lay xool intérêt moom saa surtout état africain yii ah gëmuñu dara gars yi gëmuñu dara du ñu ay murit du ñu ay tijaan du ñu dara gëmuñu dara lenn la ñu gëmul lenn bari si ñoom sax yàlla baal kenn xamul kenn xamul lu ñu gëm kenn xamul fu ñu bokk c'est que dañu bu ñu gisee mbooloo rek. dañuy dañ dañuy jege mbooloo bi pour pour s'en tirer profit maanaam pour am profit ëllëg soo gisee politiciens yi bari tey Touba ñu teg ko bët c'est parce que Touba dafa dafa am dafa am électorat bu dëgër waaw xam nga électorat Touba moom quatre millions d'habitants parce que boo ci buñ la buñ la joxee buñ la joxee maanaam bu ñëwee si yow macha allah da ngay da ngay gagné parce que boo gagné Touba gagné Ndakaaru ah gañe gañe gañe Kajoor parce que parce que gañe nga gañe nga Sénégal man moo tax gars yi bari moo tax policiers yi bari nag daw nag ñun ñëpp boo gisee ñuy daw di raam ak di di di wëndeeloo du gëmuñu gëmuñu sax mouridisme mais li ñu gëm mooy c'est intérêt bopp donc la ñu lañ calculer ëllëg ñu calculer ne bu bu ñu bu ñu demee buñ buñ ci amee buñ maanaam bu leen voté murid yi votélee c'est affaire baax c'est intérêt bopp donc moo tax ñu fay dem waaw en commençant si Abdoulaye Wade waaw par exemple avant muy avant muy nekk nekk président kenn xamul kenn xamul lu mu doon moom sax newoon na newoon na franc-maçon la woon newoon na moom franc-maçon la woon après la ci génn waaw nag moo leen woon ne gars yi gëmuñ dara waaw bu ñu demee nag ba xool ne fii c'est internet nekkatu fa duñu fa def dara waaw bu ko regee gars yi dellu dellu cosaan rek dellu cosaan comme comme ni ñoo comme noonu ñu naan ba ci bi rek dajeel seen xaalis taalibe yi génn seen xaalis dajaloo ku Touba sa kanam commencé mille francs mille francs mille francs yi daxante waaw mais état seulement li état man état moom lu yëwoon moom ay ay doomu aadama mënuñu ko parce que état lu lu mën defar si jur bu gàtt yow mën ngay mën ngay dajale fii ba fii ba déwén daa doo ko mën def bien que nag gars yi am nañ doole trop mais nag état lu mu mën def moom parce que état moom impôts yi suñu impôts yëpp lay jël impôt population bi lay jël dix-sept millions d'habitants yi lay jël maanaam tabax ci benn affaire boo xam ni ay milliards milliards lay doon loolu bu noonu waaw. am na anyway daal ñu doon daal daal daa dama daal état moom bu bu ñu xool ne fii seen intérêt ku fa rek nga gis ñu commencé di ko ñu commencé di ko boycotté ñoom seen seen yoon de seen yoon bu dindee bureau vote moom di nga di nga waxaat na la ko nga gis gars yi commencé di duñ fa tegal sànq. à moins que mu nekk ay ay talibé fervent mais ñu si bari si ñoom ñu fa demati parce que bu bu la wër na ñoom bu fa demee aussi bu élection yi jëlee kenn dina am votel foofu daa am bureau de vote bu àll bi duñ fay wuti te ñii ñu la bari ñu bari si ñoom gëmuñu gëmuñu affaire bi gëmuñu ko dañuy def noonu rek waaw mais gëmuñu ko yee bari si ñoom nag ñu bari si état bi gëmuñu gëmuñu gëmuñu gëmuñu kii gëmuñu affaire islam seen yoon
waaw tonton Sadibou maa ngi lay nuyu di la ziar bu baax a baax a baax waaw sànq bi may déglu sa lii bi fi ma nekkoon moo xaw a bari bruit dama doon lii rek mais mujjoon naa jot Isatine Isatine wax nga dëgg Diop si si Diop si tam lii la quoi solution la mais mujjoon naa jot Isatine jërëjëf waay merci beaucoup.
asalaamaaleykum waa From bi na ngeen def leen nuyu baax di leen ziar waaye biis rek nag ñëw di xaw a am temps tuuti Aliou Meng grandooy maa ngi lay nuyu ak comme fi gis boy Mosco you know ngeen jël nuyoo bi égal ko ñëpp waay euh, Maodo Mandela borom ñaari tur yu màgg yi soxna Sawda yéen ñëpp daal ñu ngi leen nuyu baax bu moo continuer quoi allumé nga man affaire élection yi Touba élection yooyu noonu man damaa gëm ne bu ñu toxalee bureau yi maanaam daal si gàttal pour tënk rek su ma gën a comprendre li may wax gëmu ne dana am daal problème yaakaar naa parce que dama gis ne élection toujours benn parti mënut a forcer ne nii lañ koy defee xalifa bi moom mën na am na droit ne nañ génne bureau de vote yi Touba mais léegi nag installation ba njaareem wala Mbàkke xaw ma fan lañ koy defee. foofu gëm naa ne war na am consensus lay am waaw gëm naa ne même dialogue bii nii dialogue politique bi def naa tey la ubbi danañ ko si mën a waxtaanee seet niñ koy doxalee bon léeg-léeg ba problème bi nag longue distance bi trans ni ñu ko tuddee tey waay transport bi mun naa am dana nekk problème mais bu boobaa ku nekk yaa jóg nga jëm fexe sa militants yi dem si bureau de vote yi daal you know man ma gëm ne daal consensus daal dana si am lu moo ëpp solo parce que tamit wax dëgg yàlla élection mosut am te consensus amut surtout nag lu mel nii war nañu mën a wax ne tel école yi nekk Mbàkke ah bureau vote nangam bi nekkoon tel si daaru mi nan exemple lay joxe quoi xaw ma fu ñu nekk quoi ñu ngi koy transféré école tel comme école Madiayla wala école nangam ak yu demee noonu bon yaakaar naa ne boobaa war nañ ko mën a def du jar kiyaar carte yeeg yooyu noonu. donc daal man gisuma si inconvénient de wax dëgg yàlla mën na ma am tuuti difficulté si affaire àgg foofu dem wote ji mais loolu responsable yi boobaa si ñoom lay des mën nañu leen di ay kaar yóbbu nit ñi wote ji ñibbiyaat loolu ba léegi Sénégal sax dañ koy def quoi am na ñoo xam dañuy jëlee nit ñi seen dëkk yu ndaw yi dëkk sa àll yi dina xam li may wax indi leen si dëkk yi xaw mag yi ñu wotee yóbbaal nit ñi bi waaw man loolu laa si am comme xam-xam beneen beneen Aliou Mbengue ma lay laaj dafa am est-ce que xam nga ko sant Mbengue kuy liggéeyee Delta. ma taseeg moom si benn fly quoi mun na firi del fa yàlla dëkk mbeng la sant ok loolu doon laaj grand séeréer di la nuyu bu baax fàttali naa la ok let's go
salaamaaleykum rajo Dakar man la général Doy jàmm yàlla yàlla fekk ci bunt bi ak sama Fatima Diop di la ziar ni Maodo Mandela waaw ok kon waaw kon kon baax na comme jot nga waajal c'est bon booy séeréer ba nga lay ziar waay di la mbeng Diop siis Till Mbengue dawati nga Till Mbengue daw rek daw rek daw rek ah dafa yaa ngi daw bu la fekk yaa ngi daw yàlla pos yaram bi nag yàlla pos yaram bi tuuti nag ah baax na ci kat yàlla nga toog benn benn fan sax off ba daf ci baax ah dimanche rek ngay off te di boo dee boo defee dimanche yaa ngi saal mon vieux ça alors waaw dama yàlla mais gaan boobu ngay wax tuddul baru mbeng te nga xam te te gàtt nii la waaw mais xam naa benn sa benn suñuy son waay la de te moom moom mi ngi delta ki may wax dafa gàtt nii rek tudd te tudd Badou Mbengue fekk na ko fekk daal fekk daal fekk daal waa ji waa ji gàtt la nii daal moom la quoi complète la quoi complète waaw complète la quoi yàgg la ci nag léegi moom fii léegi defe naa ay quatre ans yooyu quoi. c'est un ancien parachute nag ancien parachutiste ancien parachutiste la de Badou Mbengue maa ngi lay ziar waay.
waaw grandooy na nga def ay mbaa dafa dara waaw waaw grandooy tigi nag moom la som tima di la nuyu moom la parce que defe naa badara gi nga wax sax mu ñëw na sama xarit nag léegi turam bi parce que waxoon na ma ne ma Aliou Badara la tudd Badara moom la tigi gàtt te ñuul ñuulu kooku nii quoi mais xam nga ñuul daal. ñoo bokk vol dama dugg bon américain airline nag keroog si la duggoon après ma xool ko nii man ko yow Sénégal da nga de non waaw heureusement mu ngi téye itam kurusam dégg nga ñu waxtaan nag foofu si avion bi quoi après mu ne ma fes del fa laa dëkk mais delta laay liggéey mais tey xaw ma daal nu mu ko waxee daal dañ leen dañ ko indi American Airlines daal boobu maa nga voyage dem dem Tchad après ma war a escale New York pour sans vol euh, Éthiopie non New Jersey pardon New Jersey la ñu wàccoon de l'Ethiopia Airlines pour war dem fële macha allah ok kon xam nga ko ok waaye yu baax kay macha allah waxtaan nañu fa waxtaan bu gàtt te neex jamono boobu nag muy ñaan mu ne Macky Sall yàlla na dee ma ne ko déet ñu ngi si kaw jaww ji de baax na rek bu fi ëppee bopp fii bisimilah waaye ju neex la macha allah ok.
sëñ Cissé yow damaa dégg nga ne dañoo war di wax lu rafet sa audio bi dama see dégg ngay tontu Pape Sané ne ko dañoo war di waxante lu rafet moo xam ci opposition bi moo xam ci pouvoir bi pouvoir bi nag moom kenn du leen waxal lu rafet fii ci groupe bi moom ku leen ko fi bëgg a waxal da ngay génn dem waxee ji ko ci beneen groupe fii doo kenn du leen fi wax lu rafet kenn du leen fi yéene jàmm kenn du leen fi nuyu kenn du leen fi fay nuyoo fii daal ko mënta wax ci Ousmane Sonko lu jëmale procès bi kanam ka mënta wax ci Ousmane Sonko lu koy may jàmm ka mënta wax ci Ousmane Sonko lu baaxam ku mënta apprécier ak résistance am boo boo sol say dàll te taxaw ci bunt bi waaye doo fi may promotion kenn kenn kenn Ibou Ndapha ni ma xamee Sénégal gënu ma am bopp lu tax mu gën a ma am bopp moom moom mu amee Sénégal gi nga xam ne ñëpp ko bokk fa juddu fekk ko fi moom Sénégal fa juddu fekk ko fi premier président de la république du Sénégal c'est Senghor mille neuf cent juróom benn fukk xam moom la Macky Sall juddu mu ñëw ba jox ko réew mi mu jëyee ci sañ sañam nit ñi dafay lempo dafay seeni droit mu leen bunt xatal da leen sonal man sama groupe bi kenn jiituwul ma si kenn mujjul ma si maa ko ubbi si sama technologie ak sama téléphone boo xam ne maa ko jënd dugal ci nit ñi safoo leen ñu safoo ma kon mooy itam dama koy xamee ni ma neex ki ma jàppal sa tànk yow yaa fee doxle su ma la contré do sa dara du fi dox loolu laa la wax kenn kenn du fi jàllale waxe Ibou Ndap ku fi jàllale danaa la retiré yooyu boobu mu leer leen man fayu leen ma dara waaye fayu ma leen tout ça waaw ku ci nekk bu demee bàyyi boppam mu jàmm ne ñooy waaye nag li ma neex lañ fay wax de yes boss how are you all right waaye bëgg fee ne naan fu ngeen fee wax fu ngeen waxal diw lu rafet waxal fi keneen lu rafet déedéet benn ba rafet fee am Ousmane Sonko koy moom lu ñaaw xapp leen ko Ibou Ndap waa waa waa waa waa waa waa APR waaw ñoom soof nañ trop te naqati ma ah waaye yéen soof ngeen di kenn du leen fi waxal lu rafet de bu leen taxee nga ñaaral si ni ne xaj ba deew ñettaat kenn du ko fi wax lu rafetal APR kenn du ko fi wax moom wasalaam.
nga jaam yàlla sant mbeng kuy liggéey delta wax dëgg xaw ma ko de mën naa muy mbeng Mohamed Mbeng ndax Mohamed Mbeng moo dëkkoon côté yooyu mbeng mbeng njaambur man mbeng jolof la ok sant yàlla sala sa dàll yi te taxaw ci bunt bi yow te réchauffé yow yow da ngaa déggul li ma wax naa wala yow da nga yaakaar ne groupe bi da nga fay neree da sëq ay audio yu la neex te dugal ci groupe bi te doo déglu règlement yi waxuma la woon ne lu bàyyi ko RFM bu mu jaarati ci groupe bi wala sa noppi neexut wala da ngaa bëggul dëgg wala da nga fi nga ne da nga yenn ci groupe bi yow da def lu la neex groupe bi kenn du fi lu def lu ko neex li ma neex la ñooy def man li ma wax moom la ñooy def RFM benn waxaalam bu mu fi jaarati waxuma ko woon dégg barki démb ak démb ak tey solo sa daal li taxaw ci bunt bi dama xaar maa ngi ñëw
waaw salaamaaleykum mbokk yi maa ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp rek euh, doore ci Sidi Niang sister Soda Sidna Omar sama voisin euh, di nuyu tamit euh, Ahmed Mboub Lamine Bara di nuyu tamit Maodo Mandela yàlla mbin jaraaf nuyu ak ziar jaamu yàlla grand doy sister Fatima la patriote yow tamit Serigne Modou Samb Boy Moscou Diop Ziz ñoom ñëpp maa maa ngi nuyu den ziar bu baax. waaw seetlu ne temps yi daal médias internationaux yi ñu ngi singale gouvernement du Sénégal état du Sénégal sax ak Macky Sall en particulier depuis euh, manifestation premier juin yi te mën nañ ne sax dañoo pointé du doigt accuser sunu état ñaawteef yi nga xam ne ñoo fa am commencé woon na nekk nag TV5 lu ñu koy waxatee France 24 dem ba ci Le Monde New York Times donc de plus en plus Macky Sall mu ngi commencé xat daal sur la scène internationale donc ça n'augure pas bien vraiment pour lui. gis nga Fatima état du Sénégal xam nga lan moo leen di yoot li olof naan yéene néeg la boroom moo ciy fanaan pexe bu ñu mën rek def nañ ko pour nasaxal Sonko yàlla def xëy na Sonko nekkul koo xam ne en tout cas nasaxam si ñoom la war a jaar. tey combat bi fi mu egg nii côté international ñoom waru leen bett Parce que Macky Sall, il se trompe d'époque. Les méthodes qu'il utilise, hein, même le, les premiers présidents post-indépendance doon utiliser en Afrique. À l'époque, ça pouvait marcher. sunu police bi vidéo bi ñu monté su fekkoon réseaux sociaux yi amul woon mais day marché day marché mais ñoom paramètres yëpp yooyu yëpp wala jëluñ ko en compte dañuy dafa mel ni gis nga li gars yi di naan booy booy daanu cuuni ngay doon loolu moo leen dal actuellement ils font gaffe sur gaffe erreur sur erreur euh, erreur sur erreur plutôt
ah waaw Cyril na nga def maa ngi lay nuyu di la ziare di jël nuyoo bi di ko teg sa loxo man fi mu nekk nii damaa mel ne sax ku xaw a feebar ba damaa ma gàccee parce que avant am na ñoo xamante ne xam nañu Sénégal tuuti rek mais ñu bari xamuñu woon Sénégal Ah, boo leen daan wax Sénégal dañ doon wax naan xam naa li mu nekk dëkk bu am jàmm moo tax ah, américains yi xamuñu leen ñoom ci bopp loolu la ñuy wax parce que toujours dëkk yi nga xamante ne dafay am ay ah, ay guerre ay réfugiés di kam di ñëw ak di dem affaire yooyu ak ay attentats affaire yooyu dëkk yooyu ñoom boo seetloo ñoom lu ñu gën a xam dëkk Afrique yi nga xamante ne vraiment ñoo ngi ci kaw ñoom dëkk yooyu la ñu gën a xam ay Soudan Éthiopie affaire yooyu boo leen mësaan wax Sénégal dañ ko daan bind dem Google buñ demee Google xam nga xool yenn photo yi ak yooyu di commencé di jàng mais léegi événement yi tax na ñu xam Sénégal ci xa- anam bu ñaaw anam bu ñaawa ñaawa ñaawa ñaaw man vidéo yi man mënuma koo seetaan ba léegi nii mais dangay jékki-jékki rek kenn koo xam rek yónnee la benn benn capture yónnee la ko ne la ndax lii sa dëkk la xawee yow mi doon wax naan sa dëkk da mooy peaceful country beautiful country jékki-jékki rek yónnee la wan la benn xawma nervi la xawma kan la muy mbéj ki man su ma xoolee vidéo bi rek du ma ko seetaan damay koy supprimer ci saasi sama yaram bi di daw man loolu daf ma daf ma jàpp psychologiquement psychologiquement affaire bi daf ma daf ma daf ma jàpp parce que vraiment man mënuma woon a gëm ne sénégalais sénégalais danañu ko jox dara wala dana mën a jël lu metti di ko teg ci moroomu sénégalais bu ci gu ndara kàmm ñëpp di la gis nga jël ay jaasi ak ay bal di tiire ci ay nit ak luñ la ko mën a fayee jar ko yow fat fàtte yow sa xel nekkul ci bakkan boobu nga nar a rey bàkkaar bi la ci yàlla nar a bindal yow loolu sa yoon nekkatu ci man damay toog ba sax ma ne waa ndax ñii ñoo ko tey wala tey ñu ko naka lañ la mën a joxe arme ak foo mën di bokk nag ak foo mën di bokk ni la tiiree ci population sénégalais nga gis ay xale yu ndaw màgget nekk fa maire nekk fa ay xale yu ndaw am avenir yow nga am xel ak fit jël pistolet tiire mu wane rey nga nit seen conscience ñoom bu ñu tëddee est-ce que daañu nelaw man man toujours affaire daf may daf may daf ma daf may def problème man ñii manifester man yàq bugguma ko wax dëgg yàlla dama koy condamné mais bakkan moo gën a foor ay Auchan yu ñu lakk wala ay station euh, kii yu ñu lakk bakkan dafa foor doomu aadama dafa foor nga jàpp ko di ko torturer di kuma daal xol yi daal xol yi daal bokkuñu wax dëgg yàlla ba pare nag sunu gouvernement bi ak sunu policiers yi taxaw def ay conférence de presse di wax lu leen neex ay nit di ko weddi ah yow nga taxaw ak sa njaboot fa ñëpp xam ne li nga wax du dëgg man daal Sénégal daal vraiment man daal man daal man jaaxle naa daal vraiment non lii moom ruus na lii gàcce gu mag a mag a mag la gàcce la man man sama jëm bopp ma dama am sax gàcce man dama am gàcce non parce que lii non non Macky Sall xaw ma sax fu mu ñu yóbbu
c'est que li yokku naqaru sénégalais yi ci situation bi ah nga xam ne ñëpp ñaawlu nañ ko ñi ko gis ñëpp nangu nañ ne nekkul yoon ba mu des ñi nga xam ne waa état bi la ak ñi leen di jàppale reportage bi euh, Le Monde def wala TV5 def ko sànq gis naa ko ko fi dugal am na benn instant ñuy interroger si si- comment il s'appelle Seydou Gueye Seydou Gueye ñu koy interroger mais xam nga lan mooy réponse am nee na des Sénégalais volontaires se sont armés pour défendre la République mais comment quelqu'un qui occupe un poste de responsabilité peut donner ça comme argument alors que une police wala boog des forces de défense et de sécurité existent dans le pays ñoom ñuy jéem a justifier lool comme si ce sont des personnes volontaires qui se sont armées pour défendre la République vous vous rendez compte de cette ignominie déglu nañ fi ñeneen tamit ñoo xam ne ñu ngi leen di jàppale xaw Balla Gaye 2 pareil commencé nañ dugal discours boobu ci bopp nit ñi comme quoi que ne ñooñu ay agent de sécurité lañ wala ay police yu civil yu lañ wala ay ñoo xam ne dañ doon défendre dëkk bi mais dans ce cas-là à quoi bon d'avoir une police à quoi bon d'avoir des forces de défense et de sécurité
xam nga liñ naan euh, booy gasal sa noon kàmb bu mu xóot ndax mën naa am yaa ciy dugg ñoom fi mu nekk nii ah, ah, moo tax gis nga planning da ngay plan ne man nii laa koy defee nii laa koy defee yàlla sunu borom mooy ñëw ak beneen plan parce que gis nga lii ñuy def nii yëpp xamuñu woon ne fii lay mu egsi bu ñu xamoon ne fii lay egsi kon duñ ko def mais seen bopp la ñuy nax parce que nit ñi aussi boo leen waxee dara aussi am nañu droit toog réfléchir xalaat xam ne lu lii ñu ngay wax ni yanuwul maanaa parce que da nga yow da ngay wane sax ne yow kon yow yow sa dëkk dafa faible quoi yow sa dëkk amoo arme bu doy amoo ay ay service boo xamante ne ah, ay police wala gendarmerie yoo xamante ne yu mel ni bu amee dana danañu mën a jug kon défendre eh, eh, république bi yow loolu nga loolu exemple boobu nga wax nga wane daal waaw amoo enough people amoo enough people ci police bi wala ci gendarmerie ñoom la ñuy wax sax te xamuñu li ñuy wax affaire bi dafa leen a bett mais xoolal nañ bàyyi noonu rek xamuñu sax li leen di yoon.
salaam sama gars yi formalu Dakar waa ngi xaar kullu ya xaar soxna yi xaar góor yàlla yi yàlla mbir booy séeréer na fiyo na ka teen mbar wooy xëy na jam a basin ne a mun royal surtout ba ma Fatima Diop mu tagalu bu garaaw mu sëriñ sëriñ ba nga xamante ne sa waay du jam dara sa ñaan yëpp day rate laa la wax ñaan boo ñaan mu demee ba jub si rate war nga dugaat xalwa de màggal naa la ana xalilullah xaritu yàlla di la chara di char coulian foog naa kii njang baalo la di màggal forum alo Dakar mais best jaraaf Cisco ani soxoma yaa fi noonu de wuute nga ak bopp su bongo man bongo man doo cent franc mais Cisco yow waroo fi di gëj sa waay ah bopp su du tos moog mbay bopp su xoola yéen ñaari mbay au carré yi doo leen xeeru Tuuba mais Cisco da nga ñëw rek wàccee leer ma bàcculu sama bët yi si sens yi kay yaa ilaa Mandela Mandela fasal jëm nag yàgg siis yi ñaaw na de man nag xaw ma sa loolam fi waxtaane te tey déglu ma forum bi xaw ma lu fi xaw xaar kon ma ñëwaat ci samay bagage ci samay bagage bopp te forum bi nag parfois lu ci neex bu tem amul wóor ma sa ndax tem amul da ngay mën a tooñ quoi ñëw rek dugg si bagage bab si bëngu man bab sa acte sëñ Modou léegi golden boy bi xewi na Modou Siisumaan Samb nga tudd léegi Siisumaan ah dafa naa laaj ñu sky tuub bàyyil siisu bi sëñ Modou bàyyil siisu bi nangul ndogal de ah mais di màggal xulli ah góor jigéen mag ak ndaw pa ak mère booy ak bébé jibi si yaa moom paa bi de troisième âge carte bi presse oh jibi si moo daax suba tabaski waa jibi si pël jibi si yaa moom boobu yaa xeer boobu yaa ko moom jël ko da ko jëlal xeer boobu yaa ko moom paa bi la màggal lu yaatu jibi si nanga wet googu mais Cisco feeñal ma sacrifié la amoon nañ la hein da nga ñëw rek benn leer wàcc convoqué Pisco moom moom moom sa waay moo gën a baax bët ci forom absolu fi muy wàccee leer xam naa ay leer ya nga xamante ne gars yi xaar ma wax ko yaa jaa fekk ma fi defal ma bagage ay jàpp joxe la dama leer dafa am ñaari façon jàpp téye ak jàpp joxe jàpp jàllale jàpp jox sëñ Modou ak jàpp téye du benn de Modou sii su man sàmb sëñ Modou sëñ Modou feeñal baal sii su bi xoola doy na nag quoi baal si naaj bi nga tëdd di say feeñal rek saa yi damm nañ la rek mais Cisco axlan wa saxlan axlan wa saxlan bon retour ah naa leen leer yi nag ah yow moom sax ay kaaru leer gi démarré waat yaa fi ne rek waaw mais ana ana ana kii non yéen seen forum bi léegi neexatu la maaxal laa da ngeen nekk ci forum bi ku wax ngeen def ko attaque personnelle attaqué ko wóo soo ko defee genre bopp si yi nga xam ne ñoom xam nga xam nga seen fit bër ah naaj bu tàng lay bañ carton la buy taw muy seey donc duñ fi toog mu tuddati sax suñu waa ji suñu kët su bi kët su leer yi man de fàtte naa sama waa ji nag italien bi italiano gannaaw bu ñàng bi rek ah Cisco boo ñëwee jàppale ma si waaye suñu kët su leer bi man fàtte naa ko waaye cantal garaa la waaye ak a neex wóor naa la fàtte naa tur bi Cisco wàcceer kaaru leer bi léegi sama tur ñëwaat si moom Lamine Ndiaye Lamine Ndiaye grand Lamzo waaw mais grand Lamzo def wëral ma grand Lamzo waaye ah grand boobu sooy nante ba egg si moom da ngay taxaw foofu la nante nante plein la grand Lamzo da ngay fàtte gars yi sax waaw mais Mbaye feeñal yaa ngi pap ma sacrifié leen ndax Cisco xam naa dama koy gënal feeñ leen ma saraxe leen ñoom dëgg booy séeréer rek maman Fatima lu ñuy wax bu nekkee politique la du ma ci wax. daa mel ni sa politique la ndax booy séeréer li ma gis mu bind fii ah si politique lañ ne de ma sonn ci politique bi man. politique bi polier na forum bi indi leen leer yi kaaru leer yi na wàcc ñu xool jàpp téye yeeg jàpp joxe yeeg jàpp jàllale yi war naj ni yeeg babs yow moom ñaari leer danga koy dégg rek doo ko mos a am jarul sax ngay nekk fii di sonal sa bopp moom ñaari leer moom dégg rek nga ci am ñun moom saa ay dañuy xaar tuuti rek nga gën a nekkaat paar fàggu mbay kaa leen ma saraxa leen waay xam naa ñoom politique lañ fiy wax vraiment sonn ci politique bi man non sonn ci politique bi xamalal la na booy xeexaat dëkk bi taxaat voilà wala ñu génnee son ko barricade bi rek bu dul loolu moom xaw na wala waxu politique yi man maa ci pare rek dañuy xaar élection deux mille vingt quatre li ñuy tere ñu tere leen ñuy dem dem bu dëkk bi tàq mu tàq benn yoon non sonn ci politique sëñ Mountakha wax na lii sëñ bee wax na lële réew mi kenn du comprendre luy xaw ci ay waxtu ma xool ndax naa fi mën a sax saraxe mbay war a bopp ndax ñoom booy séeréer yi moom xam naa ci li ñuy wax dama leen ci mën a saraxe waa moom maman Fatou mel ni si politique lañ na magal naa leen sama gars yi forum allo Dakar fexe leen nag jaxalaat seen forum bi forum bi naqari na trop léegi ah da ngay ñëw fii doo fi fekk sa cinq audio loolu yoon na ah gannaaw quoi wala papis nga def recrue yu bees bu fekkee gars yi seen xam-xam dafa jeex da ngay ut tet yu bees da ngay ut tet yu bees mercato bi tijji na daf ko yu club yi bu xam-xamam jeex nga génnee ko ñu mel ni man ut ay bopp yu bees tàkk loolu naa tooñ tooñ cinq minutes laa illaa tooñ bii rek nguubam ardo yi ara ngeen feeñ leen mais arsi yow naay raar nga arsi nu mu demee nii xanaa nañu dégg jabaab pël nante nga de doo ngaaxe de leer la laax ak Omar wat ay pël nante ngeen wóor na ma da ngeen dégg jabaab
am message ngi nii boo xam ne Abdou Karim Wade moo ko bind di wax ci situation actuelle bu réewum Sénégal ba ko bind nag depuis ca Qatar ga mu nekk Abdou Karim Wade ne yéen samay mbokki sénégalais maa ngi leen di xamal ne day itteel na ma lool jamono ji situation bi nga xam ne moom la sunu réew du du dund ginnaaw ay fan yoo xam ne réew mi mi ngi cee ëmët jur nag ay musiba yu doy waar fi mu ne nii nag lu jàmp la kenn ku nekk ci ñun delloo si xelam ndax kat lii ñu nekk bu ñu ko bàyyiwut Sénégal mën naa àgg bu dugg foo xam ne kenn ci ñun du nekk lu koy lu koy gën loolu nag moo waral may wax ak yéen tey jii ndax man mii kat maay ki nga xam ne maa njëkk a nekk victime ci atum 2012 régime bii fi nekk teg ci sama kaw loo xam ne ngir éliminer ma comme ni mu koy defee rek di éliminer mbooleem opposition yi fi nekk te jàpp ne mën nañ ko andil jafe-jafe loolu day moo juraloon ñu tëj ma kaso ci la jaarul yoon toll ci ñetti at ci loo xam ne dañoo instrumenté si li nga xam ne moo di justice bi ginnaaw bi ñu génne ma ma sori sama réew lool kon day man ma gën a placé ngir wax ak président Macky Sall ak Ousmane Sonko dakkal leen li ngeen nekkee fitna ak violence mënta andi dara lu may échec li am ci réew mi day bouleversé na ma lool maanaam daal jàpp na ma lool événement yi nga xam ne jur na lu toll ci fukki nit ak juróom-benn ñàkk seen bakkan nga xam ne ki njaboot yoo xam ne sax finne seen yaakaar ah tas na. maa ngi bàyyi xel ci ñoom di bàyyi xel ci mboolem mbokki sénégalais yi nekk fii yépp waaye itam ñi nga xam ne seenu njaboot ñoo ci faatu itam maa ngi leen di jébbal sama njaal ñi am ay gaañu gaañu itam maa ngi leen ñaanal yàlla fëggaat seen bopp ñu moytuwal seen yitte. comprendre naa nag bu baax yéen gone yi li waral ngeen nekk lii mooy ñàkk maanaam yaakaar bu tas ak jaaxle boo waral lii ngeen nekk di ko dund ndax situation économique bu réewum Sénégal ci bëgg a tekki bëgg daal nekk ci dara taxuma dara sa ëllëg loolu moom comprendre naa ne ñu bare bare ci comprendre naa lu bare bare ci xale réew mi moo leen yóbbee lii waaye nag bàyyi leen xel ne yàq gii ngeen di yàq bu bare gii nga xam ne mën naa dem nag ba indi jafe-jafe lu bare bare ndax yàq gi indi na suñu économie bi tey ji daanaka taxaw infrastructure yu bare bare daanaka na mu war a doxee doxewu ko li nga xam ne tam mooy lu ñëpp bokk la lu mel ne barabu jàngukaay yi mag yi di université yi jamono ji lu toll ci ay junni junni junni étudiant mënuñoo jàng ndax situation bu ni mel maa ngi leen di woo bu baax a baax ngeen bàyyi xel bu baax a baax yéen gone yi te delloo gi seen xel te xam ne nag manifestation wala bopp li ngeen di def muy violence yi am ak yàq yi du def lu may rek yàq sunum réew waaye itam tilimal sunum réew maa ngi sàpp itam ci force de sécurité yi force de défense de sécurité itam ñoom itam ñu ànd ak dal te xool naka lañ mën a def ak gone yi te wattandiku di leen fitnaal ndax kat fitna muy violence mosut a réglé benn problème appel bii nag maa ngi koy appel itam maa ngi jël tamit sama woote jëmale ko ci way politique yi yéen way politique yi delloo si leen seen xel. ànd ak responsabilité privilège ngeen privilège itam respecté li nga xam ne moo di institution yi waaye itam respecté itam nangoo nekk ci ab dialogue. waaye itam def comme ni nga xam ne noonu la PDS defoon ci histoire am ko PDS day moom daa waxoon ne. moom day du dox benn yoon ci ay cadavre ngir jot ci pouvoir fukki nit ak ñeent faatu ci ay xale yu xamul dara atum deux mille vingt et un fukki nit ak juróom-benn faatuwaat tey jii lii de lu kenn mënta nangu la lu kenn mënta bari la. yéen sénégalais yeeg sénégalais yi maa ngi leen di bàyyi loo xel ñu fexe ba jàmm dellu si nag xat soxla nañ jàmm ak dal mënuñoo fexe nag ba def lu ñu bëgg wala way politique yi wuy leen ci li ngeen bëgg bu fekkente nag mbir mi dañ ko bëgg a jaarale ci wàllum violence. mu jàpp na daal yàq geeg lu ni mel amul benn njariñ di yëkkati ay mbir di sànni di taal di jaxase mu jàpp na daal loolu yëpp daal mën naa bañ a munul ànd ak wuy leen ci seen bëgg-bëgg. nee na daal bu ñu bàyyi benn yoon sun république bii di daanu ngir lan ñàkk déggoo rek ci ay mbir dëgg la war nañoo daal waxtaan xool naka la ñuy génnee ci lu ni mel fexe ba saxal jàmm ak ci ak liberté fii ci réewum Sénégal yéen peuple bi yéen sama mbokki sénégalais yi maa ngi leen di ah, woowaat ngeen ànd ak dal ànd ak sagesse respecté bu baax ànd ak respect bu baax a baax ñun day peuple lañ bu mag a mag te bu ñu toogee waxtaan day dellu si suñu xel war nañoo mën a juboo ndax li ñu bokk kat daa bari peuple la boo xam ne benn lañ boo xam ne culture am lu riche la histoire am tamit daanaka histoire benn lañu ba bare bari xam ko ñu am ay potentiel yu bare bari yoo xam ne bu ñu defee ndànk mën nañoo permettre ñu réaliser wala defar lu ñu bëgg lépp waaye daal il faut nag ñu nekk benn ànd noo nekk benn ànd ak solidarité respectante respecté état de droit waaye tam respecté démocratie réewum Sénégal ngir ñu mën a génn ci guddi yu lëndëm yi nga xam ne jamono jii sunu réew Sénégal mi ngi koy dund kàddu yi de kàddu yi bàyyi ko ci Abdoul Karim Wade dëkk fee ca Qatar ga mu nekk jeexal kàddu yi nag ne vive la République vive le Sénégal yàlla na jàmm dellu si sunu réew Mouhalim Info
salaamaaleykum salaamaaleykum kullu forum allo rajo Dakar maa ngi leen di nuyu di nuyu Maodo Mandela Mbub Mbuba Jali Maodo maa ngi lay nuyu di leen ziar na nga def ana waa Paris la France mais Maodo ah seen dëkk bi dinaa ko seeti de fan yi ah ay ñëw meeting foofu maa ngi lay nuyu di nuyu eh kii Omar ala acce toor la Omar loo loo dugalati nii ah Omar moom day ñëw rek kenn xamul ko muy fël la rek xaw ma lu muy jël fajar gi yenn saa yi su ko jëlee ba pare rek ñëw taxaw nag dugg Omar yi ngay jël fajar gi bàyyi ko waay ñaan naa la da seet di seet waa wet googu di nuyu Boy Moscou nuyu naa la ziar naa la da jox sa wàccuwaay di nuyu sëñ Elaas Ñas sëñ Elaas maa ngi lay nuyu di la ziar da jox sa wàccuwaay nga ca dégg di nuyu soxna Ayda soxna Ayda maa ngi lay nuyu di la ziar da jox sa wàccuwaay nuyu kii kan la waay kii di booy ngawle sëriñ Modou Samb nuyu naa la yem naa la lu wér a wér interdire les élections dans les deuxièmes grandes villes du Sénégal aso euh, leen ziar lu wér soxna Aïda booy ngawle lay saar yal min dégloo gu ma sa audio yi xam naa ne ruube nga forom bi ba mu ba forom bi daanu nga soog a nag ne mes ah naka waa wet googu maa ñëpp a ngi si jàmm maa ngi lay zé- ziar di la di la di la seet wër ki dem maa ngi la dégg nga ne nga nga nga xas ma xas a xas ba bu la neex xaw ma à la fin loo wax nga ne ma du ma uul yow yow ku yàgg nga quoi ay uul yooyu ah da ngay lekk uul ba léegi mais maa ngi lay nuyu di la ziar di nuyu booy séréer nuyu naa la séréer booy séréer naa fi xooy di nuyu Fatima Fatima la Lion de Passif ziar naa la di nuyu waaw mooy séeréer sëñ sëñ Sidi Ñang Jas Soda ale Léon de Passif leen nuyu yéen ñëpp Omar Mbaye Omar nuyu naa la le ziar trouble à l'ordre public et menace sur la paix de mbër mbërgo ziar naa la Omar Omar mbërgo mbërgo sonal lañu sonal lañu sonal na suñu réew maa lay ziar di nuyu mbokk yëpp di leen jox seen yéeguwaay ak seen wàccuwaay sëñ mbuub mbuub laa gis fële ah mbuuba jëli maa ngi lay nuyu leen nuyu yéen ñëpp Maodo fan yi tànnaas mooma yaa naa la di nuyu Papis di nuyu Malick di nuyu grand Thiam grand Sadibou grand yëpp ah soxna yi si forom bi yëpp ñun ziar lu wér wér karamalaahu ci hoo ziar naa la seen naa fi Cisco bërki dem di la nuyu di la ziar capitaine kaar cuguñ cageñ ko da nga ne mbir al jóge njagaj bi waaye histoire aji saar yi mooy làq mooy yàq forum bi yàlla ma yàlla baal ah aji saar dugg na dugg na si kër këru sénégalais yëpp tas ko dugg si nu forum bi rajaxe ko maa ngi leen di ziar non laay laay da nga mën tooñ quoi waa léegi dégg ngeen ne genre bab si gi su naaj bi su naaj bi dee su naaj bi génnee rek ñu ne mes toog si kër gi mais laay non il faut que nga xam ne nag ah laay foog nga xam ne Babs c'est la classe ah bëgg nga xam loolu booy nga booy ah Babs c'est la classe ndax man ah xam mais quand même laay suñ ma fekkee fii quand même ñu fekk ma may werante gauche ak droite à plus forte raison di werante si loo xam ne dara wóoru la si da nga si dégg rek ah non laay Babs c'est la classe am nag am na waxtaan yoo xam ne non doo ma si fekk ah ay nit dem na fa moo fa dem moo fa lii moo fa laa ne ni ma yàlla moom bëri naa pexe loolu rek waaye nag yenn saay dem nag moom wax da ngay wax sa bam jotee ah sooy noppi it noppi sa bam jotee waaw lu nekk ak waxtoom waaye nag li nga xam ne moom il faut le dire mooy l'injustice l'injustice moom il faut il faut il faut si jamono ju nekk bés boo ko si tegee sa bët rek il faut le dénoncer waaye nag kantaan nag nekk fii ay werante yoo xam ne ah lii dem na gauche dem na droite nii non waxtaan waxtaan si loo xam ne am na bopp am na genn waxtu yi nga xam ne yàlla jagleen ñu si kaw suuf si nga xam ne dañ koo dañ ko xayma mu mot sëkk nga xam ne bés bu ba àpp ba jotee nga ne mes na menteng waay waay waxtu yi nga xam ne moom nga am si àdduna jëfandikoo ko si jamono ju nekk ngir wax loo xam ne danga si danga si gis njëriñ danga si am njëriñ ñëw jàng si peut-être ñeneen jàng si walla di déglu di wax wax yoo xam ne it njëriñ mën na see judd ay kantaareyante fii mbëkkante fii dóorante ay mbolde ah kuru Baay Faal mbolde burit ah at base at baseball kii américain ñoom ay baseball seen seen kiiwu baseball yooyu nañ yor ah yaa yaa yaa non na walaay ay bàyyi ma waay ah Babs c'est la classe maa la may boobu jox ko Maodo Mandela aussi c'est la classe ah man dafa am si lu may wax ak lu ma dul wax ah quand il s'agit de parler je parle le moment venu je parle ah mais nag quand yi di werante gauche ak droite di non non non non non maanaam may boobu xam naa soo ñëwtee xasati ma ziar naa la.
Babs Ndiob ma lay nuyu jërë ziar restaurant bu ma dugg fekk fa seen pancarte yi yaay jëluñu ko de ah lu leen ma ko woon a jox wax nga dëgg yaa ngi si jàmm ndeke sa yaram ba deful dara Babs d'accord waaw baax na incha allah waa Paris ñoo ngi lay xaar.
allo salaamaaleykum famille yu euh, rajo allo Dakar maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp waaye di siyaar di seet nu ngeen def. di leen ñaanal ngeen ne ci jàmm seen famille ne ci jàmm seeni mbokk nekk ci jàmm aja aja ayda alors maa ngi lay nuyu di la ziar di amoon rek li nga xam ni bëggoon naa ko wax ci lii nii nga posté mu jëm ci li nga xam ni moom la nit ñi di wax ni xalif généralu murid yi dafa interdire ñu voté Touba lii nag moo mooy problème bi ñun sénégalais dañoo gaaw ci lu ni till rek ñu ni toj na moo tax léeg-léeg di naan tek waaw di bàyyi ba wënd bi ba pënd bi wuri nga doog a gis lu leer moo gën ci saasi rek ñuy wax fi mu nekk nii wax jii nii ñuy wax naan eh, sëñ Muntaxa day dafa tere élection yi léegi wane na ne wane na ni que moom dafa faral Macky Sall xam nga wax ji dafa wérul te wéeruwul ci dara te ñàkk ormal eh, kilifa gu day ni sëñ eh, Muntaxa la te sëñ bi daf fi nekkal nekkalu fi boppam maamam la fi nekkal maamam nag am ñoo xam ni dañoo euh, dañooy jariñu ci li nga xam ni liggéey na ko muy fàttali ñu sunu diine fàttali ñu aussi sunu sunu bopp man de sama classe gi loolu rekk a tax may wooye sama bopp murit leneen taxul li ma sëñ Tuubaa fàttali sama diine ak fàttali ma sama bopp waaw loolu rekk moo tax may wooye sama bopp murit ba tax na ki nga xam ni moo fi toogal sëñ Tuubaa tey muy sëñ Muntaxa bu ma gisee ñàkk ormal bii ñu koy ñàkk ormal moo xam ci réseaux sociaux yi fu mu munti doon ak di ko wax looloo xam ni waxu ko daf may metti daf may metti xaw ma nag kan moo posté lu ni mel xaw ma dangam waa APR la xaw ma waa Pastef ñoo ko posté xaw ma ay dëmm ko posté xaw ma ku ko posté waaye ca mujjanteel ba gis nañ ni que sëñ bi euh, waxul loolu mujj nañu gis ay vidéo sax yu mu naan voté bu jotee nit ñi danañu voté ci Touba vidéo boobu génn na donc euh, poste bii nii nit ñi génn ci réseaux sociaux yi euh, du waxu dëgg na du loo xam ne li ormal na sëriñ bi daal alors ca njëlbeen rek ma dellu ca la ma fi doon wax ca ba affaire yi tàngee am na ay post yoo xam ni jaru sax di poste fii waaw jaru ko di ko poste ndaxte dafay yàq beaucoup plus que muy defar day yàq beaucoup plus que muy defar ndaxte waxoon nañ fi ba affaire yi tàngee yenn vidéo yi di ko wone day tax sax ba sénégalais yi danañu ragal dootuñu génn looloo mujj am ñetti fan ku ne fatu sa kër toog ndaxte nit ñi dañ dem ba ragal parce que yi ñu leen doon won moo raglu donc euh, amul woon njariñ ñu leen di génneel vidéo yooyu di leen ragalloo ak di leen tiitloo post bii nii nii nii di wax loo xam ne lii sëñ bi waxu ko dana dem ba ñun taalibi murit yi wala boog man mii boog taalibi murit dana am façon ni may gisee yenn information yi ci réseaux sociaux yi ni que mbir mi du dara lu dul manque de respect ak ñàkk ormal ak ki nga xam ni moo jiite moo jiite tarixa bi loolu nag jar na moytu surtout fi combat bi toll nii lu jar a moytu la Euh, sinon maa ngi lay ziar di la sant bu baax di seet nu waa Paris nu waa Paris def Euh, yal na yàlla sottil combat bi yal na Ousmane Sonko am ndam te dana ko am sax dana ko am incha allah di la ziar bu baax Adja Aïda jërëjëf.
Zero minutes, zero secondes.
secondes.